ba part socialiste daanoo libéraux yi jël pouvoir bi dama ne Ousmane Tanor moo fi toog muñ ko dékku ko pendant douze bonnes années avec ses collaborateurs di soox di jóg di soox di jóg di soox di jóg ba teraanga ñëwaat ci loxoom kon boog Ousmane tanoor dañ koy ñaanal yàlla fi mu tëj fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee yàlla na Rasool laay nekk wéttalam ci barke yonente bi Ousmane kër yëpp la demale xamul tiijaan xamul laayeen xamul xaadir xamul murit tarixa yëpp la boole jël téye di def nag lu baax ci këru diine yi di baax ci église bi lépp lay def lu baax ci sey ci nit ñi kon boog dan koy ñaanal yàlla lépp lu baax lu nga xam ne def na ko ci adduna bi def na ko ci Sénégal yal na ko ko yàlla fay ci barke yonent bi tedd ba ci bi di tamala man tey laa mës a am lu ma naqadi ci moom ndax il m'a couvé il m'a beaucoup aidé tey su ma amee kër yàlla ak Ousmane Tanor la j'ai am naa kër en 1989 à la SICAP c' est grâce à Ousmane Tanor Dieng kon boog defe naa ne ak yeneen ak yeneen yoo xam ne seq na kooku man te du man rek la ko defal kon boog dama ne Ousmane ah li nga ñu def nag metti na de waaye li nga ñu def metti nañu trop mais nag munuñu xëccoog yàlla yàlla nag bàyyi na laak suñu suñu Ousmane Tanor yow miy yóbbu jaam àjjana yàlla na ko yóbbu àjjana ci barke Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam